Bonjour, euh, fidèles auditeurs et auditrices de la radio du bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Nongo Sarr, il est le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants euh, du moyen secondaire. Euh, Monsieur Sarr, bonjour, merci d'être notre invité ce matin. rectifier un tout petit peu. Vous avez parlé de cadre unitaire des syndicats. Il s'agit de cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Vous me permettrez de saluer vos... Ouais, il y a une différence. Parce que quand vous dites des syndicats, c'est comme si c'était une unité d'action. Alors s'agit d'une organisation syndicale qui n'exclut pas maintenant d'aller en unité d'action avec d'autres organisations. Cela dit, je voudrais transmettre euh, au nom du directeur national du CUSEMS, de tous les militants, nos salutations donc à vos auditeurs. Et nous espérons que cette émission nous permettra d'échanger et de sensibiliser un peu sur les problèmes qui traversent le système éducatif. En tout cas, merci d'être là. On va commencer par votre biographie, euh, votre présentation. Euh, qui est Nongosar

élémentaire, précisément à l'école élémentaire de Bengalem, avant de poursuivre nos études tour à tour au lycée technique André et enfin au lycée Federum, devenu lycée Cheikh Oumar Tal, où nous avons décroché notre baccalauréat. Ensuite, nous sommes venus à l'université Cheikh Diop, où nous avons fait des études de lettres modernes, sanctionnées par une licence en lettres modernes et un certificat de maîtrise en littérature donc traditionnelle. nous avons fait le concours d'entrée à la FASTEF, qui à l'époque était l'école normale. Et c'est comme ça que nous sommes devenus enseignants. Nous, sommes, nous avons servi tour à tour au lycée Amadou Bamba de Djourbel, avant que de venir ici à Dakar, où nous avons servi jusqu'en au lycée, donc Blaise C'est à cette date que les camarades militants du QSEMS nous ont fait confiance pour nous confier l'intérim donc de la direction du syndicat qui traversait quelques soubresauts. Alors, euh, c'est nous qui avons organisé le congrès qui a porté à la tête du syndicat le camarade Abdoulaye Ndoye qui, après ses mandats, vient en tout cas donc de euh, nous céder la place à la faveur du congrès que nous avons organisé les et octobre 2022. Voilà. Merci pour cette présentation. Ndongo Sarr, euh, secrétaire général du cadre unitaire syndical d'enseignants du moyen secondaire. Euh, les résultats des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation ont été publiés lundi dernier. Euh, le QSEMS fait partie des sept syndicats les plus représentatifs Euh, naturellement vous serez à la table des négociations avec le gouvernement pendant les cinq euh, prochaines années euh, faites-nous un peu l'évaluation de ce processus. Écoutez, vous nous permettrez d'abord de remercier nos militants, nos responsables, dont l'engagement, la mobilisation nous vaut cet honneur de les représenter au niveau de la table de négociation. Vous savez, les élections de représentativité, c'est nous qui les avons Parce que, euh, en un moment, nous étions dans une situation où la pléthore avait comme conséquence Donc, de sorte que c'est nous-mêmes qui avons demandé à l'État la rationalisation de la table. Et c'est ainsi que les premières élections de 2017 ont été organisées et avaient vu cette organisation syndicale atteindre le seuil de représentativité qui était fixé, donc à 10 donc pour cent. Donc nous donc les sept syndicats étaient élus pour euh, un de 5 ans. Voilà pourquoi en 2022, il fallait retourner donc vers nos, de manière à renouveler un la représentation, mais également la crédibiliser. Et au donc sortis des euh, e en tout cas, se voit conforté, consolidé dans sa position. Puisque, contrairement à nombre d'autres syndicats, non seulement nous avons acquis le seuil de représentativité, mais nous avons amélioré donc, le score donc, de, euh, de vie, donc Donc sous ce rapport, nous devons vraiment une fière chandelle à tous nos camarades qui se sont mobilisés et quelquefois même au-delà donc, de nos rangs pour qu'effectivement nous obtenions Donc c'est résultat-là. Maintenant, il est un ensemble de choses donc à, à déplorer. Vous le savez, c'est la première fois que cette élection se tient avec la modalité du vote électronique. Avant même qu'on y aille, nous, nous avons toujours décrié, en fait, ce mode en raison des circonstances donc, dans lesquelles nous devions y aller. Tout le monde sait que l'écosystème du numérique dans ce pays, mais présente un certain nombre de limites. Ici ajoute que la manière dont le fichier électoral qui a servi de base à cette élection, ce fichier-là a été conçu, mais cela a également présenté un certain nombre donc, de défaillances. Et la conséquence, c'est que ils sont nombreux, nos camarades, qui n'ont pas été donc dans ce fichier. Ici ajoute également que nombre de nos camarades n'ont pas fini d'apprivoiser donc l'outil informatique. Il a résulté de nombreuses difficultés. Et en fait un trésor d'imagination de certains de nos militants beaucoup plus eh pour lever des obstacles qui nous ont permis d'en arriver à ce taux de 52% donc de participation. Cela veut dire que quasiment la moitié des enseignants donc n'ont donc du tout Mais encore une fois, nous y sommes allés avec cette modalité donc du vote. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'en tirer en tout cas toutes les leçons de manière à ce que pour l'avenir, eh bien, tous les quoi, toutes les difficultés rencontrées, on puisse en tout cas donc les, les adresser. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats Êtes-vous satisfait de ces résultats Naturellement, puisque l'objectif c'était la représentativité. Et je vous Mais encore une fois de plus, eu égard à la façon dont nous avons géré le premier mandat qui nous a été confié. Mandat durant lequel l'ensemble des enseignants reconnaissent que nous avons été le fer de lance de la lutte syndicale. Que c'est nous qui avons porté pratiquement toutes les préoccupations au point de leur valoir les acquis salués par tous, eh bien, nous nous attendions donc à faire Euh, à faire un bond beaucoup plus important. Il est vrai qu'on a fait un bond, mais nous attendions à faire un bond, en tout cas donc beaucoup plus important. Qu'à cela donc ne tienne, ce sont nos pères qui ont parlé et naturellement nous respectons bien entendu le choix donc euh, qu'ils ont fait. Et nous nous emploierons dans ce mandat en tout cas qui nous est confié à être très proches donc de ses militants, des enseignants, et à porter l'ensemble des préoccupations de manière à nous permettre de faire avancer l'école, mais également les conditions de travail et de rémunération des enseignants. D'accord. Euh, depuis le début, des syndicats et des enseignants ont douté de la fiabilité du vote électronique. Qu'avez-vous à leur dire Mais ils n'avaient pas tort. Et nous-mêmes, nous faisions partie

pour lever un certain nombre donc d'obstacles. Sans quoi, mais le pourcentage risquait, risquait en tout cas d'être beaucoup plus, beaucoup plus faible. Donc sous ce rapport, effectivement, ces gens-là, ils n'avaient pas tort. Mais nous vivons aujourd'hui à une ère où, où les technologies de l'information et de la communication ont pris une place adapter. extrêmement importante. À l'évidence, il faudrait qu'on s'adapte, mais il faudrait que nous nous donnions tous les moyens de cette adaptation. Et dans le cas d'espèce, nous, nous pensons que c'est cela qui n'a pas été, qui n'a euh, n'était-il pas un pari risqué pour vous en tant que secrétaire général du QSEMS e Parce que je pense que c'est la première fois que vous dirigez euh, la première fois en fait je dirige une liste, chaque fois que nous avons compétit, mais j'étais dans l'appareil qui a travaillé pour que nous obtenions. les résultats. Donc sous ce rapport, je, je n'ai pas été dépaysé et ça n'a pas constitué en tout cas un handicap. Donc pour, nous avons été sur le terrain à la rencontre donc, de nos pères et je crois que c'est le travail que nous avons fait qui nous vaut effectivement de faire un bond. Là où nombre d'organisations ont connu en fait donc une chute. Donc ce bond-là, nous le reconnaissons, nous le saluons et nous allons continuer donc à travailler. D'accord. Euh, faites-nous un peu un petit bilan euh, de votre mandat précédent. Écoutez, le mandat précédent, c'était le mandat du EG, Abdoulaye Il va de soi que euh, nous qui l'accompagnons, nous étions comptables tout autant que lui, et bien de tout ce qui s'est fait. Et je crois que ce mandat-là, quand même, mais tout le monde l'a salué, eu égard à tous les acquis qu'on a obtenus. Au plan salarial, je crois que euh, les acquis obtenus par les enseignants ont été des acquis extrêmement importants. Et je crois que si nous ne les avions pas obtenus, avec ce renchérissement du coût de la vie, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je veux être très clair. J'ai dit pour important que soient ces acquis, nous autres du CUSEMS, nous le disons haut et fort, c'est des acquis qui ne nous satisfont pas. Pour une raison bien simple. Quand nous sommes allés en grève l'année dernière, mais c'était pour l'équité dans le système de rémunération. Et au moment de conclure les négociations, nous avons posé la question aux ministres qui étaient là et qui étaient au nombre de six. Nous leur avons dit, mais aujourd'hui, ces mesures autour desquelles nous nous sommes accordés pour adresser la rémunération des enseignants, si on les applique intégralement, est-ce que cela gommera, effacera totalement l'iniquité dans le système de rémunération. Elles-mêmes, ces autorités qui étaient présentes nous ont répondu que non. Pour ajouter, mais reconnaissez tout de même qu'un pas important a été fait. Nous le disons, certes, nous le reconnaissons, mais dès lors que vous-même vous dites que l'iniquité donc n'a pas disparu, mais il faut que vous conveniez, vous aussi, que ce premier pas, pour important qu'il soit, mais il doit être suivi par d'autres pas pour que nous en arrivions à une fonction publique où, à profil égaux, mais les agents percevraient sensiblement, donc les mêmes, donc rémunération. Donc sous ce rapport, il faudrait que ce soit très clair, le combat pour l'équité dans le système de rémunération, nous allons continuer donc à le mener. Et il faut que les camarades à la base donc le cherchent et se mobilisent, en tout cas en conséquence. C'est d'autant que après avoir augmenté nos, nos, nos, nos, nos salaires et donné l'impression donc d'aller dans un sens de réduction des écarts qui étaient inexplicables, mais tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'est passé. On a procédé à une augmentation généralisée des salaires et quelquefois, pour certains agents de la fonction publique, dans des proportions beaucoup plus importantes que celles pour lesquelles on a augmenté. des enseignants. Donc le problème, il demeure et nous allons nous mobiliser donc autour de cette question. Tant que l'inéquité dans le système de rémunération va demeurer. Sous ce rapport, nous voulons être très clairs. D'accord. Euh, le QSEMS fait partie euh, des syndicats les plus représentatifs euh, aujourd'hui. quelles sont les priorités du moment euh, Quel est l'enjeu Mais je viens de vous le dire. Une des priorités, c'est le combat pour l'inéquité dans le système de rémunération. Ensuite, vous avez la question des professeurs contractuels de philosophie qui ont fait des études de sociologie, qui sont confrontés à un problème de formation. Cette question-là, il faudrait qu'on qu la règle et illico presto. De même, il y a beaucoup d'autres cibles qui, eux aussi, sont victimes de cette question de la formation. Vous avez nos camarades MEPS, maîtres d'éducation physique et sportive, dont certains sont dans le système depuis plus de 23 ans, sans des perspectives donc de carrière. Il est vrai que la grève de l'année dernière nous a permis la signature d'un donc leur corps donc d'accueil où ils doivent être reclassés, le diplôme qu'il faut mais nous voulons que très rapidement, eh bien, leur formation s'organise de manière à, les, à leur permettre de donc dans ce donc des PCMG en éducation. Donc, il y a la question lancinante des décisionnaires. Et sur cette question, il est vrai que nous l'avons portée au point qu'aujourd'hui, il y ait un décret qui soit dans le circuit. Mais j'ai dit, la teneur donc, de ce décret donc, pose problème. Et c'est pourquoi nous avions réclamé en fait qu'il y ait une rencontre de partage, de manière à ce que tous les aspects dont souffrent nos camarades, donc qui sont euh, qui ont ce statut-là, mais qu'on puisse les adresser de manière à ne pas devoir, après la signature du décret, être obligé donc de nous remobiliser en fait pour qu'il y ait des distorsions donc à corriger. Donc sous ce rapport, question-là également, c'est une priorité donc pour nous et il faudrait que très rapidement en tout cas donc cette question donc soit réglée. Donc la question de la formation de façon globale, les camarades chargés de cours également, ils en souffrent Mais vous avez tous ces camarades qui sont déjà titulaires, mais qui ont acquis des diplômes et qui prétendent à une mise en position de stage qui permettra donc de les reclasser donc dans effectivement euh, un autre corps donc supérieur. Donc toutes ces cibles là aujourd'hui attendent et moi, je l'ai déjà dit au ministre de l'Éducation nationale, je lui dis que si rien n'est fait très rapidement, mais la prochaine crise que nous avons, mais nous la devons à cette question-là, donc de la formation. Sous ce rapport, il faudrait rapidement que cela évolue, sans quoi, eh bien, ce système-là, il sera paralysé. Il y a enfin cette question des libertés qui sont piétinées aujourd'hui dans ce pays et qui ne peut pas continuer et qui nous valent aujourd'hui l'arrestation de nombre d'enseignants dont le seul tort est d'exercer des libertés accordées par la Constitution, notre charte fondamentale. À l'évidence, cela n'est pas acceptable et nous invitons les autorités à respecter scrupuleusement l'exercice donc de ces libertés, à libérer tous ces camarades injustement arrêtés pour nous éviter en tout cas de devoir vivre une crise donc liée à cela. Nous ne voulons pas en arriver. Le contexte de ce pays-là est extrêmement chargé et nous ne voulons pas eh bien, qu'on nous mêle, bien entendu, donc à ces problèmes qui sont des problèmes politiques. Les politiciens n'ont qu'à adresser leurs problèmes donc entre eux. Mais de grâce, qu'ils laissent l'espace scolaire exempt donc de cela. En tout cas, nous lançons un appel, nous tenons les autorités en tout cas pour responsables de la sécurité de tous ses camarades, donc qui sont nous les sommons de les libérer le plus rapidement possible, sans quoi, mais nous-mêmes, nous allons aviser et prendre en charge le combat, et bien pour qu'ils soient libérés. D'accord, vous m'avez marché sur la langue concernant les enseignants décisionnaires euh, qui réclament une meilleure gestion de carrière. Euh, mais justement, dans leur dossier, selon vous, qu'est-ce qui bloque Mais vous savez, pour nous, en fait, c'est juste une question de volonté. C'est juste une question de volonté politique. Parce que cette question-là est dure. Nous, nous l'avons portée depuis fort longtemps. Et depuis qu'on nous dit que le décret, finalement, qui était dans le circuit, donc, euh, a été donc enrôlé, mais ça commence à durer. Encore une fois de plus. Et vous-même, vous êtes témoin. Les Sénégalais sont témoins qu'il est arrivé dans ce pays mais que des décrets puissent être diligentés au point de paraître très rapidement. Mais très souvent, c'est parce que c'est des décrets dont les conséquences, en fait, intéressent très souvent les euh, décideurs politiques au premier chef. Alors, dans ce pays-là, nous nous considérons qu'il n'y a pas une double ou une triple citoyenneté. Tous les citoyens, donc, se valent, et c'est avec la même diligence, c'est avec la même rigueur, et eh bien, que ces actes-là qui doivent être pris donc doivent être traités de manière à régler donc les problèmes et à avancer. Donc cette question des décisionnels, il faudrait que très rapidement, donc on la fait. D'accord. Euh, euh, peut-on parler donc euh, de recomposition aujourd'hui du G7 avec euh, l'arrivée de Nambout, du puissance authentique Écoutez, une recomposition, certes, il y a une organisation syndicale donc qui fait son entrée donc dans le cercle restreint des, représentés. Et il est une autre organisation donc qui est sortie. Ce que naturellement donc nous, nous, nous, regrettons, nous regrettons. Mais encore une fois de plus, je ne, parle, je ne pense pas qu'on puisse passer de, de, de, chamboulement, puisque sur les sept organisations, les six donc, sont revenus. Il n'y a qu'une organisation, en tout cas, donc, qui, qui, entre, et nous ne pensons pas que cela soit de nature à créer, en tout cas, donc, des bouleversements extraordinaires dans la façon de prendre en charge les préoccupations des gamins. Nous continuerons, comme par le passé, à les prendre en charge avec la même rigueur, avec la même détermination, avec le même. Donc, Rien ne va changer. Euh, nous ne pensons pas. En tout cas, nous, personnellement, nous, sommes, nous restons exactement dans les mêmes dispositions. Nous sommes conscients que si les camarades nous ont fait confiance pour les représenter à nouveau, mais c'est parce que quelque part, ils ont sans doute ce que nous avons fait en leur nom. Et sous ce rapport, nous ne voyons pas pourquoi nous devions changer de fusil d'épaule. Et qui nous connaît, connaît le pucelle, c'est que ce qui, en tout cas, l'a toujours caractérisé, mais c'est la constance dans l'action syndicale, c'est la détermination dans cette action syndicale. Nous ne dérogerons pas par rapport à ça. Euh, d'accord. Euh, on va vers des élections de représentativité des centrales syndicales. Euh, c'est pour bientôt. Euh, qui allez-vous soutenir euh, C'est prématuré de le dire. Mais je dois préciser qu'un des mandats que nous avons reçus de notre dernier congrès, c'est de deux choses. Ou alors d'intégrer une centrale syndicale, ou alors de consulter d'autres camarades d'autres secteurs pour créer nous-mêmes une autre centrale syndicale. Nous sommes en train donc d'y travailler, nous sommes dans le processus. Sous ce rapport, je ne puis pas vous dire ici, mais d'une manière ou d'une autre, croyez-le, nous participerons activement en tout cas à ces élections de représentativité syndicale donc pour de représentativité pour les centrales syndicales d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. D'accord. Euh, parlons à présent de vos points de revendication. Euh, où est-ce que vous en êtes? Écoutez, les, les, les, les points de revendication, vous savez, le CUSEMS a déposé un préavis de grève. C'était le, le 12 décembre donc dernier. dans ce préavis de grève, mais revient cette question de l'équité dans le système de rémunération. Je l'ai dit tantôt, tant qu'elle demeurera, cette inéquité nous nous battons. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier que dans la même fonction publique, qu'à profil égaux, que certains puissent percevoir deux, trois, quatre fois ou même plus que d'autres. Ou que, à profil égaux, certains agents aient une seule indemnité qui dépasse, je dis bien, la totalité du salaire donc d'autres agents. C'est une injustice, il faudra en tout cas donc la, la il y a toutes ces questions dont je viens de vous parler. La question des contractuels de philosophie. Et vous savez, ce qui est, ce qui est désolant, c'est quand on vous dit que c'est pour une maudite enveloppe de 34 millions, et bien que la formation de ses camarades donc, est bloquée. C'est extraordinaire. Il est vrai qu'il euh, y a des tiraillements entre la FASTEF qui doit s'occuper de la formation donc, et la tutelle Mais encore une fois, nous, cela nous importe peu. Et nous l'avons dit au ministre de l'Éducation nationale. Nous l'avons dit, peu importe les goulots. Nous, nous avons des camarades qui doivent être formés, mais c'est votre responsabilité de lever les goulots pour que les camarades puissent être pris en charge. Et je le répète, cette question-là, il faudra qu'on la dépasse très rapidement, sans quoi elle nous vaudra une crise. Peu nous importe la situation de crise politique dans laquelle le pays est. Et nous pensons que les autorités comprendront le danger qu'il y aurait à ce que nous, nous nous impliquions, nous nous lancions dans un combat dans ce contexte pour très rapidement diligenter ces questions et les régler définitivement. Vous avez la question de cette formation, j'ai dit, qui se pose pour bien d'autres cibles. Vous avez les camarades MEPS, mais vous avez tous ceux-là qui attendent d'être mis en position de stage. Vous avez les camarades chargés de cours, qui par ailleurs souffraient de la mobilité également professionnelle. Parce que comme ils étaient recrutés au niveau d'académie, on les confinait dans cette académie. Et certains d'entre eux, ils sont restés dans ces, dans, dans ces académies depuis plus de 15 ans. Heureusement que dernièrement, nous avons discuté avec le ministre, nous avons porté cette question auprès du ministre de l'Éducation nationale et la décision a été prise de prendre les dispositions nécessaires pour qu'au prochain, euh, comme adresse encore, au prochain mouvement national, eh ben, qu'on puisse en tout cas leur permettre donc de participer. C'est la même chose également avec nos camarades de professeurs de lettres classiques qui eux aussi ne pouvaient pas compétir pour les postes de français alors qu'aujourd'hui l'écrasante majorité d'entre eux n'enseignent plus le latin ou le grec, ils enseignent le français. Mais arrivé au moment national, on leur disait que non, vous êtes des profs de lettres classiques, vous ne pouvez compétir que alors qu'ils n'enseignent plus donc les lettres. Là également, les discussions avec les autorités nous ont permis en tout cas donc d'avancer donc sur ces questions. Il y a cette lancinante question, j'ai dit, des décisionnaires, qu'il nous faut là également dépasser très rapidement. Mais il y a d'autres questions qui agitent le système et dont il nous faut très rapidement discuter avec les autorités. On ne peut pas nous confiner dans des, problèmes donc, qui relèvent donc, du passé. Il y a de nouvelles questions donc, qui se posent et relativement auxquelles il faudrait qu'on des solutions. C'est naturellement la question de la révision donc des curricula, c'est la révision des critères de nomination donc des IA aujourd'hui donc dans, dans ce pays, mais c'est également le reclassement de nos camarades donc inspecteurs de l'enseignement donc moyen qui sont déjà des en tant que PS, ils sont déjà des profils bac plus 6. On leur fait faire une année de formation au terme de laquelle donc ils ont un bac plus 7, et on veut les confiner dans la même hiérarchie où ils étaient avant que donc de, de faire donc cette formation. Tout ça, c'est des absurdités. Il y a l'environnement scolaire de façon globale qu'il faudrait donc qu'on respecte. Vous avez également le déficit clair d'enseignants dont pâtit aujourd'hui le système.

donc après la formation et il faudrait que cette question là également donc soit donc réglée mais au-delà j'ai dit il y a tout l'environnement scolaire qu'il faudrait que l'on amène aujourd'hui le déficit d'enseignants le déficit d'infrastructures nous vaut mais des effectifs pléthoriques dans les classes j'ai visité euh, des établissements à Saint-Louis où vous aviez 114 élèves par classe imaginez 114 comment un enseignant peut prendre en charge correctement donc une classe donc de cette taille ça veut dire qu'on demande tout simplement de faire donc l'impossible donc ça c'est des questions qu'il faudrait qu'on règle le plus rapidement possible il y a la question des abus provisoires d'ailleurs dernièrement vous avez suivi vous-même la sortie du ministre qui se scandalisait du fait que en tout cas les moyens déployés pour leur résorption ne produisaient les les effets donc Mais tout cela, c'est de leur responsabilité. Mm-hmm. C'est une responsabilité partagée entre euh, la tutelle et sans doute les entrepreneurs chargés. Qui, qui, qui, qui les a choisis Qui les a choisis Ces entrepreneurs ne se sont pas autodésignés ah. comme ça, comme par miracle. Ah. Et moi, je crois que quand effectivement vous, au terme d'un appel d'offres et autres, vous attribuez des marchés, mais vous avez un droit de regard au quotidien qui doit permettre effectivement que les choses se passent. donc dans l'ordre donc encore une fois de plus c'est une cuisine interne qui ne nous concerne pas nous nous ce qui nous intéresse c'est qu'effectivement mais cet argent-là qui est mis à la disposition de notre pays pour régler ces problèmes donc de l'école mais qu'on puisse en tout cas veiller à leur utilisation efficace et efficiente aux besoins exclusifs donc du système mmh. et sous ce rapport toutes ces questions il faudrait que en tout cas euh, très rapidement on les dépasse pour nous éviter en tout cas donc de connaître une crise mhm. donc dans le système. D'accord. Donc on peut s'attendre euh, à des grèves? Écoutez, un syndicat ne peut jamais exclure, en tout cas dans l'arrivée à une grève. Mais nous, notre option, ce n'est pas d'aller en grève à tout va. Tant qu'il sera possible d'adresser les questions, quelles qu'elles soient, par la discussion, parce qu'on a une oreille attentive et des autorités engagées avec nous à régler les problèmes, nous, nous préférons cette voie. Mais tout le monde nous connaît. Et la devise de notre syndicat le dit de manière claire, nette et précise, nous invitons nos pairs à faire très bien le travail qui leur est confié. Voilà pourquoi la devise dit le travail bien fait. Et après seulement la lutte acharnée. Parce que celui qui fait son travail correctement, mais il est en droit d'exiger tout ce qu'on lui doit. Voilà. Donc il fait son devoir, mais les droits qui lui reviennent, mais il faudrait qu'en tout cas donc les autorités ne les piétinent pas. En tout état de cause, nous n'accepterons pas. Donc D'accord.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 Euh, malgré donc euh, ce programme euh, que le ministre avait lancé pour éradiquer les abris provisoires à côté pourtant le ministre lui-même avait dit que on peut pas ne pas s'empêcher d'avoir des abris provisoires car c'est la démographie du Sénégal qui augmente d'année en année en fait on dirait que c'est un problème qu'il n'arrive pas à résoudre jusque-là écoutez je ne l'ai pas suivi je ne l'ai pas entendu tenir de tels propos Mais je crois que si effectivement c'est ce qu'il a dit, quelque part il y a problème. Moi je crois que, euh, vous savez, à l'échelle d'un État, il doit y avoir une planification, donc de fait. Et je crois que plutôt que de courir pour résorber des déficits, il aurait mieux valu, mais qu'on anticipe donc sur les questions. Et à mon sens, ce n'est pas un problème de moyens donc, qui se pose. Le problème, ce sont les arbitrages que font nos hommes politiques. Des arbitrages très souvent en défaveur du système et de ses acteurs, alors que, mais ce système-là, mais tout le monde le sait, mais c'est le premier gisement de croissance. Vous savez, on ne pourra jamais développer ce pays sans pour autant avoir un système éducatif efficace et un système éducatif en fait qui nous permettent d'avoir en tout cas donc des résultats. Vous savez, le système éducatif, mais il impacte sur l'ensemble des autres secteurs. de sorte que si on le néglige, mais à l'évidence, on court vers des difficultés. Regardez un tout petit peu tout l'argent injecté dans ce pays depuis belle lurette. Mais qu'est-ce qui empêche juste là Mais c'est parce qu'on néglige ce système éducatif. Or, c'est de là eh bien, qu'on doit en tout cas impulser le développement de la nation. Tant que les autorités ne comprendront pas que le système éducatif est la voie de l'émergence, quelque autre décision qu'ils pourront prendre ailleurs, eh bien, nous piétinerons. Et c'est dommage, en tout cas, donc, de constater ça. Vraiment. Euh, le débat se pose euh, toujours euh, concernant les tenues scolaires. Euh, les premières livraisons, euh, c'était il y a quelques jours. Était-ce nécessaire si l'on sait qu'on est à trois mois de la fin de l'année scolaire Écoutez, nous, notre de tenue scolaire, a été très claire depuis Nous, nous avons dit en fait que, vous savez, quand on gère un système, il faut déterminer les priorités. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes mais il faut les classer par ordre de priorité vous ne pouvez pas être dans un système où vous n'avez pas assez de salle de classe vous n'avez pas assez de professeurs vous n'avez pas assez de table banc et plutôt que de régler ces questions qui sont essentielles donc ces problèmes basiques vous les laissez de côté et vous dites non non non on va habiller des élèves qui de toute évidence si même vous ne les habillez pas, viendraient à l'école bien habillés. Parce que c'est d'abord la responsabilité donc de leurs propres parents. Donc cette question-là, tout le monde sait que c'est sans doute une communication, en tout cas politique, qui préside, bien entendu, à ça. Mais si vraiment le souci, c'est de faire en sorte d'avoir cette école de, de la réussite, une école donc performante, la priorité, ce ne sont pas donc les temps. Maintenant, que des parents d'élèves et autres puissent s'en réjouir, ça nous pouvons le comprendre. Mais j'ai dit, mais les parents eux-mêmes, je suis persuadé qu'ils auraient préféré que leurs élèves se retrouvent dans des classes donc bien construites, bien construites, avec des tables bancs, avec tous les moyens didactiques qu'il faut, ainsi de suite, etc., etc., et qu'on ne, qu ne donne pas de tout. Je crois que les parents, moi qui vous parle, je suis un parent d'élèves. encore une fois de plus, j'ai les moyens de prendre en charge donc les tenues donc de, de mes élèves. Donc sous ce rapport, 10 milliards par an sur 3 ans, à notre sens, cela aurait permis de régler bien d'autres problèmes beaucoup plus importants. Mais bien entendu, l'établement. Aujourd'hui, vous visitez le Moi, j'ai à Massasso. Figurez-vous, une grande ville comme Massasso. Je suis allé au lycée. sur 38 classes, les 26 étaient des abris provisoires. Dans certains lycées où je suis allé, figurez-vous que les professeurs, ils avaient une salle de profs en abri provisoire, avec une nappe. Il n'y avait même pas des chaises pour s'asseoir. Ici, dans le bourg, j'ai visité un CM où, figurez-vous, c'est à l'ombre d'un arbre que vous aviez la principale et ses élèves, avec des bureaux, à l'ombre d'un arbre au centre donc de l'école comment peut-on avoir ces problèmes dans le système les occulter ou en tout cas ne pas les prendre en charge à la hauteur donc des, des défis que ces problèmes-là représentent et aller s'intéresser donc à, à donner des tenues annoncées il y a trois ans de ça et donc vous-même vous dites que euh, la première livraison et moi je suis persuadé que d'ici la fin de l'année mais tous les élèves du Sénégal ne recevront pas du tout donc de tenues et c'est pourquoi sur cette question précise, mais il faudrait que toute la lumière soit faite. Parce que voilà deux ans qu'on nous a annoncé. Donc cela, qu'est-ce qui a fait On a dit que la première année, on allait débloquer 10 milliards. Ces 10 milliards ont-ils été débloqués, oui ou non Le cas échéant, pourquoi Depuis qu'on a annoncé, confectionner des tenues scolaires quand même, chaque année, dans le privé, mais on confectionne. et, et ça ne prend pas deux ou trois ans et eh bien pour les faire donc nous ne voyons pas ce que des privés peuvent faire normalement l'État du Sénégal devrait être en mesure de le faire plus rapidement et avec beaucoup plus de diligence donc nous ne comprenons pas et sous ce rapport il faudrait vraiment que cette affaire-là soit suivie de manière qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour que nous accusions donc ce, ce retard de manière à ce que nous sachions exactement si cet argent-là a été débloqué et comment exactement il a été donc utilisé. Mhm. D'accord. Euh, euh, parlons à présent euh, du programme scolaire. Des euh, élèves récemment ont formé un collectif euh, pour demander à ce qu'on revoie donc le programme. Ce qu'ils veulent, c'est une, une, réduction du programme scolaire. Êtes-vous d'avis avec ces élèves nous, nous sommes parfaitement d'accord. si vous prenez le préavis de grève dont je vous ai parlé tantôt, il est un point qui exige la révision des curriculums. Mais vous savez, euh, il y en 2021, nous avons vécu la Covid. Et à l'occasion, on avait suspendu les cours pour toutes les classes qui n'étaient pas des classes d'examen. Il n'y a que les classes d'examen qui ont continué à faire cours. Et des mesures ont été prises allant dans le sens de la réduction des programmes qui ont été délestés d'un certain nombre de leçons les classes qui n'avaient pas d'examen, donc ayant été envoyées en vacances, on a utilisé les profs qui les tenaient pour améliorer l'encadrement. Les classes d'examen ont été éclatées, donc en groupe beaucoup plus restreint. Et ces mesures qui ont été prises nous ont permis, pendant cette année de Covid, mais de faire de très bons résultats. Et c'est pourquoi quand on a évalué la Covid. Mais il a été dit, et ce n'est pas nous seuls qui l'avons dit, c'est toute la communauté éducative qui s'est retrouvée à Sali, et nous avons tous convenu qu'un des enseignements de la Covid, mais c'est qu'il fallait aller vers la réduction des programmes. Donc tout le monde convient qu'ils sont démentiels et qu'il y a un ensemble de choses qu'on y trouve qui sont superflues. Donc sous ce rapport, Nous, nous trouvons que très rapidement, il faudrait qu'on aille donc vers ça, mais il faudrait que ce travail-là soit confié, bien entendu, à des hommes de l'art, donc qui s'y connaissent. Il ne faudrait pas du tout que l'on politise donc cela au point de nous retrouver en tout cas donc avec des changements qui risquent d'impacter négativement donc le, le système. Mais nous, nous pensons qu'au-delà, c'est notre modèle même qu'il faut réinventer. Moi, je dis très souvent que aujourd'hui, c'est comme si on l'avait compris au niveau du, du supérieur. Aujourd'hui, regardez dans les ce qui se passe. Mais il y a un changement de paradigme avec les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Aujourd'hui, c'est des bacheliers qui sont accueillis dans ces instituts et à qui on dispense une formation professionnelle. Et une formation calibrée selon les potentialités socio-économiques de la région d'implantation. Et au bout de deux ans, mais ces jeunes bacheliers, ils obtiennent un diplôme, donc le DISEP, qui leur permet d'être opérationnels de suite, un, de deux, de pouvoir entreprendre, auto-entreprendre, sans pour autant donc rester dans la position de ces étudiants qui habituellement sortent de l'université, attendent de faire des concours pour, comment dirais encore, obtenir un métier. Moi, je crois que ces ruptures-là, consacrées déjà au niveau donc du supérieur, mais nous devons les amorcer donc au niveau du, de, des lycées. À partir de la seconde, il doit être possible de faire en sorte que certains jeunes s'oriente directement vers des bacs, donc professionnels. Mais nous ne pouvons pas continuer euh, avec ce système qui veut envoyer tout le monde, donc comment encore faire des enseignements supérieurs, alors que manifestement, on le sait, tout le monde n'a pas le potentiel eh bien, pour aller faire donc, des, des études. Donc au-delà de la révision des curricula, moi je crois que c'est tout le système qu'il faut repenser de manière à faire en sorte que les produits de cette école puissent porter eh bien, le développement donc, de ce pays. Vous savez, avec les, les ISEC dont je vous, je vous parlais, mais ils sont nombreux, des jeunes qui ont eu le bac il y a deux ans ou il y a trois ans, qui ont obtenu leur diplôme et qui aujourd'hui ont monté leur propre structure. C'est ça qui va permettre de résorber la question du chômage. Mais si tous font exactement les études donc dans le système tel que nous le connaissons aujourd'hui actuellement et attendent à la fin que l'État leur propose donc du travail mais nous ne nous en sortirons jamais mais alors absolument donc jamais donc sous ce rapport au-delà de la révision des curricula nous nous pensons en tout cas que c'est l'ensemble du système qu'il faut réformer maintenant la réflexion elle est déjà faite le problème c'est la volonté politique de ceux-là qui nous Tout le monde sait ce vers quoi il faut aller. Je vous ai dit tantôt que l'évaluation de la Covid nous a indiqué des voies. Mais le mal dans ce pays, c'est qu'on réfléchit. On trouve effectivement les bonnes pistes, mais ensuite les rapports sont, sont, sont comment dire, encore classés dans des tiroirs. Vous rappelez mm-hmm. le, le, le, le, coup de gueule, je m'excuse de parler du professeur Abdou Salam qui a été nommé pour diriger un tout petit peu euh, les, les, assises donc de, de l'éducation et qui, ayant constaté effectivement que les rapports des travaux, malgré les sommes importantes qui ont été investies pour ça, que ces rapports-là dormaient dans, dans les tiroirs, s'est désolé à travers une sortie donc de cette situation-là. Mais hélas, c'est comme ça que ce pays, il fonctionne. Donc vous pensez que le système est obsolète, certaines mais, matières euh, sont inutiles mais, mais, vous savez, vous encore une fois, je crois que ça, tout le monde le, le constate encore une fois. Vous savez, cette école-là dont on a hérité et qu'on a par moments tenté de réformer, et il faut dire les choses, il s'agit beaucoup plus de réformettes, donc qu'autre chose, tout le monde sait que ce n'est pas cette école-là qui va nous permettre de porter voilà il y a des ruptures je ne parle même pas de changement c'est des ruptures paradigmatiques importantes vers lesquelles il faudrait impérativement que nous nous lancions mhm. si tant est que nous voulons former ces ressources humaines à même de porter donc le développement Mhm. donc mhm. donc euh, si le chômage euh, persiste toujours euh, c'est à cause de notre système. mais entre autres raisons aujourd'hui vous avez un système où vous allez jusqu'à la fac et vous attendez que ce soit l'État du Sénégal qui vous donne mais tout le monde sait que l'État ne peut pas employer tout le monde ce qui permet de résorber la question du chômage dans un pays c'est que l'État en fait aménage le cadre forme des acteurs de manière à ce qu'ils se déployer, investir dans ce cadre et, bien entendu, produire de la richesse, employer les gens. Mais un État n'a jamais permis. Il n'y a nulle part au monde où un État peut, euh, comment dire encore, employer tous ceux-là qui réussissent, en tout cas donc, dans les études, etc. C'est pas possible. Donc ça, il faudrait vraiment qu'on rompe avec cette, vision-là. Elle ne peut nous mener que vers, en tout cas, donc l'impasse. D'accord. Euh, il ne reste quelques minutes. Euh, quels sont les défis du Mais les défis du QSAMS, e euh, un de ces défis, c'est d'abord euh, une réforme de l'architecture interne, donc de notre organisation. Mais ça, c'est une cuisine interne sur laquelle je ne m'étalerai pas. Donc, outre mesure. Donc, il faudrait que ce soit donc, très clair. Un autre défi également, c'est au plan social. Aujourd'hui, nous, nous voulons, par des, des projets, faire en sorte que euh, nos camarades militants puissent mieux vivre, obtenir un logement, mieux être couverts en matière de prise en charge sanitaire, etc. etc. Donc ce sont des chantiers tout cas. Nous voulons également dans le domaine de la communication, mais améliorer un tout petit donc les, les choses. Et sous ce rapport, en tout cas, nous, avons, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets. Euh, les élections de représentativité vers lesquelles nous allions ne nous ont pas permis, en tout cas donc, d'avancer très rapidement sur ces, sur ces questions. Mais aujourd'hui que nous les avons derrière nous et que notre leadership a été donc conforté, donc très rapidement nous allons nous orienter en tout cas vers la réalisation donc, de, ces, de ces différents projets qui permettront en tout cas d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail, en tout cas donc de, de nos pères qui nous ont fait confiance. Mmh. Merci, Monsieur Sarr. Euh, c'est la fin de cette émission. Eh bien, Le passe très vite. Eh bien, c'est moi qui vous, qui vous remercie, euh, Sylvie, et qui salue un tout petit peu euh, la qualité du travail que votre, euh, organe donc fait. vous savez, je vous suis depuis pratiquement votre, votre naissance, et il est quelque chose que je constate dans la presse de façon générale, et que nombre de citoyens déplorent, euh, dont vous, en tout cas, vous êtes exempt. En tout cas, c'est le constat Merci. que je fais. C'est le lieu, de le salut, parce que c'est cela qu'on attend, en tout cas, donc, de la presse. Mais on n'attend pas d'une presse, qu'elle soit à la solde, en tout cas, donc, d'un quelconque pouvoir, au point, quelquefois, de, biaiser, donc, l'information. Ce n'est pas le rôle attendu de la presse. Merci, c'est à vous remercier. En tout cas, vous êtes toujours disponible euh, quand on vous appelle et nous vous remercions, nous vous remercions pour ça. Merci donc euh, euh Nongosa, secrétaire général du cadre unitaire syndical d'enseignants du moyen secondaire. Euh, merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diao Diallo et Bachir Sissi euh, Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine. Vous donc la semaine prochaine. Vous donc la semaine prochaine. Vous donc la semaine prochaine. Vous donc la semaine prochaine. vous donc la